asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah mardi 25 juin 2019 yu ñëw ci yëglikaay yi yëglikaay yi nag tey sunu làmb la ak la turbine ak fi nga xam ne nii moo di Leewtoo TV bu dee yëglikaay bi nga xam ne nag moo di sunu làmb la moom tey daal bi mu xëyee ñëw ki mu ñu andil mooy Zallo bi nga xam ne ancien champion la boo bëggee dëgg-dëgg nekkoon na tamit fii nga xam ne moo di écurie Fass ba mu bëree nag ba bàyyi bëree toog di encadrer ay xale tey nag moom bu Boubacar ñaa xëy séq ak moom waxtaan wu yaatoo yaatu Zal nag ñëw na ci combat bi nga xam ne moo war a dox ci diggante kii nga xam ne moo di Lac de Guiers numéro 2 bu Waalo ak Boy Niang bu Pikine yëglikaay ba nee na Zal daal la mu xëy di wax lenn la Lac de lay waxal nee na ko Lac day jàppal ne ka xaar moom mënee su cee dëkk naan dangay xaar parce que ñëpp dañ ne xaarkat la xaarkat la bala ko Boubacar ñang wax zaal ne ko déet bi yoon nag na seeti leneen de ndax nag xaar xaar bu yàgg moom bu yàggee day am leneen loo xam ne da koy niru te ne na nag sax yow làkk boo jéemu la uti meneen pexe jàppal ne booy ñang moom dina ay pexe yoo xam ne day ay ay buntu lay wër yoo xam ne day jéem faa jaar ngir porox ndoll ngir jéem laa daan te mu yoonam kon nag boo yeboo moom comme dañ ne da ngay xaar zaal lu ne ne la dëgër seetal beneen pexe bi yoon moom wutal weneenu yoon wala nga day gàddu ma aw feneen waaye xaar ba moom daa jàpp ne bi yoon moom du luy sottal mbir ma wala bu ko defee day te fas yeneen sax booy ñang moom dina wëri fu mu jaar ba daan ko te bu keroogee moom jàpp ne loola mën na koo réussir zàlloo moo xëy tey di wax fii nga xam ne moo di ci yëglikaay bii nga xam ne moo di sunu làmb jëmale ci combat boobu keneen la dégg tontu du forox muy rëg-rëg na ñoom ñaar day na ngir ñu bëri rëg-rëg nee na ko nag na jàppal man tamit li leer ba leer moom rëg-rëg nee na daal bëgg-bëgg yi mu am nee na yenn la la nga xam ne moom la Yékini defoon ci wàllum ay ndam ak fa mu yeggoon nee na ngir mu romb record booba daal nee na loolu moom moom la bëgg dem ba romb ko nee na tamit bëgg na loo xam ne nii day maanaam indil waa Caaroy lii nga xam ne moo di roi des arènes Reug Reug moo xëy tey ci yëglikaay bi nga xam ne moo di suñu làmb di fa wax keneen koo xam ne nii moom yëglikaay ba xëy na tey di ñu wax ak di wax ak moom mooy Aliou maane mi war a bëri ak suñ Sunjata ba nekk ca Bosco Sow le 6 juillet yëglikaay bi ne ko dey Aliou jàppal bi yoon moom daan dong moo la jig boo ko deful moom jàppal ne nga faa jaare sax moom ah say mbir moom naax saay wala bu naax saayul itam nar naa metti kon lool ci yow yëglikaay bi di sunu làmb moo xëy tey ba tey dina wax lool leneen loo xam ne tamit yëglikaay ba da caa ñëw ba tey ci làmb ji nga xam ne rek mooy làmbi dóor xale bii di tampon doo day mu ngay wax ak kii nga xam ne moo di pakali siñoor bu kër mbay faal lam koy xamal daal nee na ko jàppal de suñu yeggee suñu combat pour le 31 juillet moom jaar sa kaw jàll loolu laa lay def yëglikaay bi moo xëy tey dalal ko séq moom waxtaan mu xëy di fa wax lu mel noonu loo xam ne tamit mu nga war a am le 7 juillet di làmb yëglikaay bi moom ñaar ñu ko war a seet daje la ñu def de muy sëñ Modou Ñaa ak Assane Ndiaye yëglikaay bi nee na bu dee sëñ Modou Ñaa le 7 juillet boobu mu ngay tëgg ci fa nga xam ne mooy stade Iba Mar Diop diggante Ndiaye Tine rakki Tapha Tine moom moo di ka nga xam ne nii moom moo di kii nga xam ne nii moo di Birahim Signor foofu la koy tëggi Ndiaye Tine Birahim Signor jamono jooju nag Assane Ndiaye moom mu nga fa nga xam ne mooy arène nationale di fa tëgg kii nga xam ne moo di double moteur bu rëbës ak fëgal mu mel ni ki kon jàppal la set booba day ñaari promoteur moom daje nañu muy Assane ak kii nga xam ne nii moom moo di Serigne Modou Niang yëglikaay bi moo xëy tey dinu ko wax waaye leneen loo xam ne tamit yëglikaay bi nga xam ne moo di La Tribune moo ci xëy ñëw muy Mbaye Diagne la xëy daal tey di ko laaj ci wàllum football bi moom day nee na donte football intéressé ko lu bëri waaye daal li mu xam mooy am nañu équipe boo xam ne ay xale la ñu te mën nañu li ñuy def itam kon nag Mbaye Diagne daa jàpp ne day li des mooy ñu bennoo boole xol yi te jàppalante ndax jàpp ne lool suñ ko defee day lu ne mën nañu koo am waaye dañuy demaat foo xam ne moom voilà ci mbir moo xam ne ba tey ci làmb ji la rek ndax drapeau de l'État bi day jàpp néew ci des mu mel ni ki nag waa Ziguinchor wala waa Casamance seenu équipe itam ñoom génne nañ ko comme ni ko ñëpp di defee 66 kilo ba yëgle kaay bi ne day Benjamin Samb moo fa ne 76 kilo ba Ferdinand Samb 86 kilo Diatta Diop 100 kilo Mor Seye 120 120 kilo Sosef Mousse siis noonu la ñu ko yëglikaay bi xëy xamale waaye jàpp leen drapeau chef de l'État boobu de kii nga xam ne moo di Maysa Ndiaye lépp luy wàllum làmb ci région de Thiès moo ko jiite de mu ngay xëy xam ne de moom jàpp na ne day mën nañoo dund ay moment yoo xam ne day moment yu neex a neex wala koo xam ne daal yoo xam ne foo koy takk dana ko weesu nga xam ne mooy ci jëm ci lii nga xam ne moo di drapeau chef de bi yëglikaay bi nga xam ne moo di sunu làmb ba tey moo xëy dinu wax loolu beneen xale boo xam ne yëglikaay wax naag moom moom nag ka mu jàpp daal ne mooy lutteur préféré mooy kii nga xam ne nii moo di amaabal Baldé ka ko wax nag mooy Ama bu Malika mu mel ni kii daal kon koo bëggati rek dee ko safoo niroog moom du yàq dara waaye taala Aïssa Mbaye Diagne wax na lu am solo ci Coupe d'Afrique bii nu ne maanaam ànd booloo jaxasatuñu ay xol xàccindu tuurundu yéenante jàmm aka am solo Aïssatou Faye lu waay di def lu ne rafetal njort ci sa bopp waaye noonu nga koy defee ci sa ci yow itam ay satu fay del rafet njot ci ñëpp na yow sax yaa nga ca ndax jatu fekk na sotti ca ca naaw te yow jóg nga bu yàgg maaleykum mbokki suivre Leewtoo TV ñu leen ñi bu baax di leen ziar di leen jaajëfal di leen wax namoon nañ leen di ñëw ak yéen ci seen revue comme ni ñu koy defee à chaque fois ma si ànd ak sama mag sama xarit Babacar Babacar nuyu naa la. Aïssa. internautes yi comme ni nga ko waxee. baax yàlla na yàlla yokk loolu di la nuyu di la ziar di la ñaanal yàlla tamit soj mi yàlla na gën a wér mais nuyu nañ internet yi suivre Leewtoo TV yëpp waaw Babacar tey ñu dugg si waxtaan bi ànd see ki nga xam ne nii ancien champion la fi muy Zallo mu ñëw ci combat bi war a dox diggante Boy ña ak Lac de bi yoon nag mu ñëw di xamal ni Lac de Guiers nit mënoo dëkk ci xaar parce que combat bu nekk tam war nga cee wane leneen lu bees combat bi daal li mu gis mooy nee na Lac de dafa war a ñëw entreprendre jéem a di nga def li nga xam ne ni mooy démarche yi ci kaw ki nga xam ne mooy Boy Niang waa Zallo de encore ñu koy nuyu di ko ziar parce que yaakaar naa Zallo ci làmb moom kenn du ko présenté kenn ndax ci lii avec frappe am na lu mu ci def lutte simple tamit am na lu mu ci def kon yaakaar naa lu mu wax ci bëre rek warees na caa mën a bàyyi xel loolu mu wax la dëgër dëna ah xëy na da koo bëgg lu jël loo kon ay initiative si combat bi pour mu wuti beneen yoon comme moom dañ jàpp ne défenseur la saal xamal ko ne ko loolu mu ne su cee dëkk maanaam de xaar ça veut dire que loolu mooy kon wutal yeneen bunt ak yeneen solution ngir lan ngir jéem a daan sa adversaire waaw am na lamb yooyu moom mënees na warees na caa xaar mais am lamb yooyu waree su cee xaar yaa ngi dégg kon nag loolu ki ko ko wax bëreekat bi moo ko ko wax kii bëree ba tekki ngembam di former ay mbër moo ko ko wax Lac de Guiers tamit dama naan ñi ko wër pour man xam nañ làmb ndax Mohamed Ali yaakaar naa bëri na ba bàyyi bëri champion bu mag la yaa ngi dégg sans compter ñi nga xam ne ñooy ay Arona Sall ay entraîneur am ñoom liiru jaan ak bëri nañu macha allah ñooñu ñu ko wër ñëpp ay ay ay ay bopp lañu ak ñi mu bokkal écrit ñooñu ñëpp xam nañ lan mooy bëri kon yaakaar nañu itam li ko war ci combat bi dinañ ko ko wax parce que adversaire bu ne dafa koy abordé am na adversaire yoo xam ne moom li mu laaj mooy da leen di attaqué ji dem jëli leen bëri ak ñoom am na ñooñ da daje ak da ngay dox daje ak ñoom maanaam da ngay jóg dañuy jóg nga jóg nga dogale leen ngeen bëri am na ñoo xam ne nag danga leen di fekki doo xaar ñu ñëw loolu nag lu mu ci mën a doon dafa am adversaire yoo koy def ak yoo ko dul def waaw néew ma nag bu mu xaar néew ma itam na attaqué mais l'essentiel que lu mu ciy def na xam adversaire bi mu koy def nan lañ koy attaqué ak booy Niang nag seetlu naa ci moom lenn moom am na yoo xam ne attaque nañ ko attaqué yoo xam ne moom mujj leen jik moom waaw waaw parce que tamit dafa am noo koy attaqué parce que li ma waxoon laay wax rek xale la te bëre bi muy bëre bëre mag la de Aïssatou Faye booy ñan bëre mag dëgg lay bëre wax la dëgg dëggeer di nag déstabiliser ko jafe na mais nag sàlloo wax la ko wax moom mooy xam nu koy dégg mook astafam waaw Babacar jógee ci sàlloo dem seet ki nga xam ne mooy rëg-rëg ginnaaw bi Sa Thiès génnee wax ci combat yi nga xam ne ñu ngi koy dox donte nee na déggagul ku ko wax waxi rëg-rëg mais bés bu leen làmb boole dinañ bëre bu leen boolewul duñu bëre rëg-rëg tey tamit moo ñoo génn daal di wax moom it nee na bu Sa Thiès pare moom pare na

moom euh, du bañul dara mais am na staff staff staffam mooy décider à sa place. tëjul buntu yi gaa mais tamit euh, tëjul buntu yi ràpp mais ubbilu ko ubbilu ko ubbiwu ko carrément. <laughs> waaw loolu de leer na maanaam moom daal dafa wax mais wax ji moom li mu wax ak lu ci mën a am bu dox combat jotee staff ba lay engagé. waaw rëg-rëg moom moom nee na pare na waaw moo tax ma ne kon promoteur yi nañ ñoom ñi war a dox nañ essayé ba xam daal buntu bi dina ubbeeku wala du ubbeeku mais li ma xam daal ñoom ñaar ñëpp ay xale lañ toll nañ ci seen jamono macha allah. toll nañ ci fi ñu war a bëree mbër nag li ma waxoon laay waxaat rek soo demee bañ naan sa combat ak moom sa combat bokk fu ngeen taxaw rëg-rëg nag comme loolu mu wax moom tamit pare na ah kon promoteur yi ñoo que lamb moom noonu la rek dug maas dabante la te wolof ñoo ko wax garab ci kaw lay fekkante ñoom ñëpp ku ci ne tey bëri nga koo xam ne ba ngay bëreek moom ñàkkul moo la jiitu ci lamb wala nga jiitu ko ci lamb mais soit lu war a a bëre muy lu raisonnable parce que am na combat yoo xam ne soo ko waxee rek nit ñi dañ naan lii lu war a am la kenn du ci werante lu bëree bari mais nag lamb moo tëdd noonu mais l'essentiel que kon daal promoteurs yi ay satu nañu dem démarché ji combat ba ana Luc Nicolaï ana Assane Ndiaye ana Fallou ak ñoom Dieye ah ak ñoom Pa Abdou Fall nañu daas ngànnaay waaw te te waajal déwén comme saison baa ngi waaj a tëj ndax combat bi xam naa ne ku ko taxawal tamit bu soobee suñu borom moom déwén nga ko mën a tëgg incha allahu rabbi waaw. mbokk ñu dem seeti ki nga xam ne mooy euh, Aliou moom moom ginnaaw nga xam ne ci ay jafe-jafe la nekk booba léegi ñi ngi xamal ni nag mi ngi jëm ci combat boo xam ne nii c'est capital ci li des ci carrière mooy contre Sundiata parce que bu gañewul moom fu mu toll nii situation dina gën a critique et surtout génn lay gën a jege ka bokkaat. ah waaw loolu moom du ma ne dina génn de waaye xam naa daal victoire gu gën a jig moom parce que tamit gis na am ndam Aliou Mané yàgg na ay at xam nga. amul benn ndam tey mu jëm ci combat boo xam ne mook Sunjata te Sunjata moom arène nationale mooy mbër bi fa njëkk a bëre am fa victoire loolu la yàlla dogal loolu moom histoire jàpp na ko tey lay njaay boole leen ci benn combat pour le 10 juillet kon Aliou Mané am na lu ko war parce tamit Aliou ci làmb yaakaar naa ne doo ko gis ne ana mbër mi wala nangam wala mënta bëri wala non non non kon nag moom it na defar waat bu baax a baax ngir préparer ndax nag bu daanoo moom bi yoon parce kenn boo daanu di waaye li ma xam daal mooy dina sonn moom waaw di nga gën a amee jafe-jafe ci bëre moom waaw kon nag daanu jigu ko su suñu tey du bëgg a daanu ndax dafa nekk xale bëgg yegg ci mag ñi yaa ngi dégg moo tax ba nga xam ne tamit seen combat boobu moom fa mu jaar ak Pape Sine la yaakaar na fa la bëgg a jaar moo parce que lan la day bëgg yegg ci kanam a kanam Aliou itam day bëgg moom it defaraat boppam parce que defaruwaatam ci làmb combat bii la mais su ko ñàkkee nag ay buntam day gën a mm, tëju lool lool lool waaw ñu ngi leen di ñaanal nag combat ba yegg seeg jàmm que le meilleur ñu jógee xam ne mooy Meissa Ndiaye yor euh, CRG bu Thiès nga xam ne tamit mooy drapeau chef de l'État parce que ñoom ñoo war a accueillir fële ca ne nag euh, dinañ fa gis incha allah ay lamb yu neex dund fa moment lamb yoo xam ne ni nit ñi dinañ ko yéex a fàtte. ah waaw loolu de bu mënee am moom dañ naan alhamdulilah yàlla nañ ko fekkate tal ko rek parce que drapeau chef de l'État moom ñu yóbbu ko ci région de Thiès ci département de Mbour kon Meissa Ndiaye moom itam ñu koy nuyu di nuyu CRG bi nga xam ne moo nekk ci région bu Thiès bi yëpp ah rawatina suñu ay am

moom jàppal ne di nga fa gis bëre lool di fa gis xëccoo bu tara tara tar mais yàlla nañ ko commencé jàmm rek mu jeex ak jàmm ñu fekke lépp te ki nga xam ne moom la gën ci moom mu jël ko mais nag la ma waxoon laay waxaat rek man daal ay sa maa nga région de Diourbel ah waaw parce que ak yaay laa dëkk te maa ngi bokk ci département de Bambey te Diourbel mooy sama raison kon kay man raison de Diourbel laay faral waaw. baax na ñu xool lu wane bu jéggee tam parce que compétition moom gëm naa ne ren moom du yomb comme yow ci booy fay nga far parce que mooy seen capitaine ñu xool nu ngeen nu mujjee rek euh, ñu dem si euh, waa Ziguinchor ñoom te nañ seen euh, cinq yi nga xam ne incha allah ñoo leen war a représenté fële ca drapeau chef de l'État. waaw Ziguinchor ñoom tamit comme ni ko ñëpp dafay génne nañ seen cinq ah seen. li ko commencé ne soixante cinq soixante cinq kilos ba cent vingt kilos bi ñuy cinq yi nga xam ne ñoom tamit ñoom lañ am yaakaar loolu tamit mooy affaire bi ah, ku nekk daal fi mu nekk nii di soññ sa waa kër soññ sa ay sa équipe ngir lan ngir mu mën la indil drapeau de l'état bi mais nag loolu vraiment lu neex lay doon parce que drapeau de l'état tamit vraiment ni muy demee léegi neex na trop parce que tamit moment yi neex lañ koy bëree xëccoo bi day neex xam nga mu nekk loo xam ne daal lu neex la kon waa Casamance génn nañu ñu ciy profité nag di nuyu Kaasase yëpp a ah. waaw Kaasase yëpp rawatina nag sama mbokku joolaa yi <laughs> xam nga ñoom maay seen buur <laughs> noonu la demee. <laughs> waaw Babacar nii lañu andi la ñi xam ne ñooy suivre revue de l'arène di leen wax ñi nuyu Mame Talla ci caméra bi yàgg. équipe Leewtoo TV yëpp Ousmane Montage Ndeye Kumba biram Birame Gningue képp koo xam ne rek yaa ngi Leewtoo ñu ngi leen nuyu waaye itam di ñi nga xam ne ñooy bégg Leewtoo di leen safo di nuyu Mado depuis Italie di nuyu Amar Gueye Chéri di leen nuyu bu baax borom nuyul ma baabu Babacar nel Babacar. non Amar kii Amar Gueye di borom kër si Nogay chaque jour mu ne ma nuyul ma Babacar ne ko fan si laa soppe laa. nga ñooñu ñu nekk ci Italie ñu ngi leen nuyu bu baax di leen ziar ak képp koo xam ne nekk foo mun ti nekk rek ñu ngi lay nuyu di la bëggee bu baax. waa Amar kon tey maa ngi koy nuyu Amar Gueye maa ngi lay nuyu bu baax a baax Serigne Nogay fay ah Nogoy rakku Aïcha maa ngi leen di nuyu depuis ital di leen ñaanal yàlla tamit sëy boobu ngeen di def yàlla leen ci yàlla defal ndam ak barke ngeen fekk lépp njaboot gi jëriñ leen parce que lu may wax rek mooy sëy moom boo koy def Aïcha def ko te yàlla tax yow ku góor ki yërëmal ko jigéen ki te di ko muñal te di ko jéggal yow ku jigéen ki tamit déggalal ko góor ki yaa ngi dégg su ngeen ko defee rek ak fu ngeen mën a ne rek yàlla mën na def ci seen diggante barke ak lu mënta xew parce que loolu rek moo ci am kon Amar yàgg na koy maa ngi leen di ziar bu baax a baax mais tamit di nuyu bépp soxna boo xam ne nii yaa ngi ci néegu sëy ak góor gu ci nekk ñi ko amul tamit ñu ngi leen di ñaanal yàlla yàlla jox leen li gën ci ñoom parce que loolu rek sa waaw non Iba dina am soxna maa koy nuyu Iba di ko nuyu bu baax a baax moom doomu Pikine la borom xol bu nice la maa koy nuyu di nuyu tamit équipe bu ah, nga xam ne moo ne si caméra bi Serigne Lebou Ndiaye moom tamit di ko nuyu di nuyu Ousmane Ousmane célibataire maa koy nuyu bu baax a baax ñoom Biram Ndey Kumba Fall xam nga Rose nuyu naa ñëpp yàgg Modou Mané Mansour suñu père Alsane du ma ko fàtte ak ki nga xam ne nii mooy père Seydou ba tamit di ñu topp di ñu bàyyi xel per ñu ngi lay nuyu bu baax a baax mais di nuyu tamit waa Leewtoo yëpp mais nag euh, damay nuyu ki nga xam ne mooy Ngañ Sow nekk ba États-Unis commandant Fall xam nga ak chef John Sina quand Abdou Diassé mais du nuy tamit ki nga xam ne mooy coach su jamono depuis Paris di sama xarit di sama waay maa ngi koy nuyu bu baax a baax Youssou Ndoye l'international du ma ko moom sama soppe la di nuyu yaayam soxna Penda Diawara maa ngi koy nuyu bu baax a baax nekk fii ci Sacré-Cœur ak magam Mami Ndoye moom Youssou di leen nuyu di nuyu ñëpp daal mais tamit Aïda Diouf mention spéciale maa ngi lay béggee bu baax a baax yàlla na sa jàmm yàgg di ñaanal ñëpp jàmm barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Aïda borom ndox mi <laughs> ci loolu lañ leen di joxee rendez-vous suba incha allah.